barke borom Touba mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi fii ci dëkk bu tedd bii di Touba ci loo xamante ni bii mboolem presse bu Sénégal dañoo sàkku ay leeral yoo xamante ni bii dañ ko bëgg ci sëriñ Bassirou Abdou Khadre mi nga xamante ni bii moo yor kàddu xalif général kullu sëriñ Serigne euh, Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñu bëggoon nag am ay laaj yoo xamante ni bii. ku ne xam na ni màggalu Touba jub si na ay fan moo ci des ñu bëggoon sëriñ bi indil ñu ay leeral ci yenn ay laaj yoo xamante ni bii taskatu xibaar yi ci Sénégal ñoom ñoo ko sàkku loolu moo waral ñu ànd koog ñenn ci ñi nga xamante ni bii am nañ ku leen teewal fii ci Touba ngir ñu fas yéene indi ay leeral ci loo xamante ni bii ay laaj la yoo xamante ni bii dina yokk suñu Pastef ay laaj la yoo xamante ni bii dina yokk. suñu gëm-gëm ci sëriñ Touba muy ay laaj yoo xamante ni bii dina yokk nan la ñuy gën a fonk dëkkub Serigne Touba bile. kon sëriñ bi euh, laaj bi nga xamante ni bii dinaa ko laaj mooy sëriñ bi dañu bëggoon nga baaxañu tuuti ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul digganteem ak boroomam. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wahda wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki julli ji tedd yi bokki taalib yi ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di leen ndokkeel ci weeru tedd yi di weeru muharram nga xam ne ci la atum julli ji tàmbali di ñaanal cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy alxalifatul aam li tariqati muridiya suñ borom yàggal ko fi lool dëgëral taxawaayam ba mboolem naa yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa génn ko lépp suñu borom may ko kàttan ak jur ba mu àggale ko na ko bëgge lii itam laaj naa ko ci ndigal démb leeral ko li ñu war a wax lépp mu joxe ci ndigal kon li ñu bëgg wax lépp ci ndigalam lañ koy waxee dégg nañ itam kàddu yi nga xam laaj nañ ko kon bi ci jiitu ni moo ko daa faral di waxee rek dafa nekk aada ju rafet mooy loo xam ne itam kenn waru ko ëppale sa bopp ndax at mu jot ma fàttali ko ak Cheikh Mouhamadul Fadil daana ko may ñi nga xam ñoo yëngatu ci presse yooyu jamono télévision amagut ñu di ko laaj moo leen di tontu te ñoom lu def rek du tënku ci jamono ba àddina tukki rek doo gis ñu def ko mooy aada ju rafet rek loola lu war a mën a sax la kon laaj bi jiitu ci jëmbi Sëriñ Tuubaa ngeen laaj ñu wax ci tuuti ci jëmbi sëriñ bi Cheikhul Khadim suñu yaakaar tey ak ëllëg nga xam ne suñu yaakaar jëpp génn ko kon sëriñ bi mbiram ni ñu koy waxee rek géej la géej nag boo ci dugg boo ko jàkkaarloo moom doo xam fooy tàmbale doo xam dangay ne ca tefes gële wala fële ku ne it mën nañoo bañ a gisante sëriñ Tuubaa loolu la ko suñu baax defal ci mbiram booy waxtaan ci moom it dooy xam fooy war a tàmbale waaye li ci ëpp solo rek muy genn wet goo xam ne danañ ci indi tuuti tey fàttaliwaat ko ndax wax luñ fi waxutoon rek mënta am ndax alquran boo gisee muy tudd wazukur fil kitaabi ismail wazukur fil kitaabi idris wazukur fil kitaabi yooyu ngay dégg mu koy tudd mooy fàttali ndax doomu aadama dafa bindoo di fàtte kon faw ñu di fàttali la wàccoon ci alxuraan ba nëgg moom la ñu fàttali addis bu bu bees it amatul mbindum sëriñ Tuubaa it amatul kon lu ñu fi wax rek lu ñu fàttaliwaat lay doon sëriñ bi nag fi mu dikkee ci jamono booba ñépp xam na ne fekk ne lislaam tumuraanke tumuranke na ci na ko rasulullahi waxoon ne bada al islaamu xariban wa shuyuuru xariban sëriñ Tuubaa dikki ci contexte boobu yi boobu fekk na yéefar yi not jullit yi kéefar di bëgg a daj àdduna rawatina Sénégal nasaraan yi ñëw ngir noot nit ñi jël seen koom-koom rekki seen ngëm soppi seeni aada soppi seen culture jëmbët ñoom li nga xam ne moom lañ gëm Serigne Touba dikk def li ñuy wax xatiyaatu xatiyaatu ci day naqari firi ci wolof mooy indi leneen mooy rupture ngeen koy tudd yéen Sëriñ Tuubaa loola def indi li ñuy wax badil badil it mooy lu ñu watee boo ko doon firi ci tubaab ndax baat tubaab bi dafa koy moytu mooy li ngeen tuddee alternative ndax koo bàyyi loolu dara faaw nga jàppale ko dara Sëriñ Tuubaa bi mu dikkee ci loolu nag fekk suñu boroom ci ni mu ko dogale yàlla rocci doole àdduna ci ci loxoy julli ji jox ko yéefar yi Sëriñ Tuubaa ci waxtu wala dikkee ci kaw suuf bi mu dikkee nag suñu borom lim ci jubloon mooy di xool nit ñi ba xam dañuy dellu ci gëm yàlla ak xool ëllëg fàttali loolu walla dañuy topp tubaab yi ba rekki ko seenu kéefar Serigne Touba ci waxtu wala dikkee bi mu dikkee itam mu indaale lu yees lu yees loo xam ne nekkut lu lu lu luñ sos dafa fekk ne ko suñ kilifa gu baax ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon wax wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon moo far mu ñëw gajj gajj ba yeesalaat ko ne yoon waa ngi ku bëgg a dem newaat ñëwal ñu ñëwal ñu dem bi muy dikk itam dafa juur a jëm ci yoon wi ñu am ndigalu suñu borom itam bu woote bi mu wootee itam ndax li ñuy wax euh, théorie ak pratique xamul nu ñu koy waxee ci wolof mooy li nga xam ne dañ koy jàngale ak li ñuy jëfe dafa bokkut mooy boo ko noonu natt iman islam ak ihsaan ihsaan lu ñuy jëfandikoo lay doon Sëriñ Tuubaa bi mu dikkee huwa alladi baasa fi lummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim baatu tazkiyatu boobu foo ko fekk rek mooy tasawuf Sëriñ Tuubaa loolu la ñëw ngir indi ko la ko jëkk nag Mamadou Anta Sali ku ne xam na ne yoroon na daara di jàngale loolu kon mooy li fi fekkoon mooy théorie bi Sëriñ Tuubaa nag pratique bi mu woote mooy lii ñu fi indi tey muy jébbalu ndax jébbalu mooy jaayante jaayante ak jébbalu ndax jébbalu gone du ko def ndax ki toll ci juróomi at juróom-benn at bàyyi ma ko yóbbu ca daara ja kon day mel ne la may def coobareem yóbbu ko ja bu weesoo fukki at juróom jëm kaw nag loolu jébbal amatu fa moo tax booy ñëw ci sëriñ bi ne ko jébbal naa la sama boobu àddina ak alaaxira yaa jébbale sa bopp loolu mooy jaayante sëriñ Tuubaa loolu la indi muy lu yees indee ko foo xam ne itam da ci am digg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax da ko ne rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi ñii ma la booleel nga nekkoon ñoom di leen jàngal yoon woowu bàyyi ko te indi tarbiya mooy li ñu fi indi tey mooy li indi yoon wi fii tey bi ko Sëriñ Tuubaa wootee itam Cheikh Mahamadou Bachir junj na ko téere bi nee na fa zahabal jullu wa baqiya al xullu ña ëpp dañoo dem ndax boobu miinuñ ko woon ña amoon ak dogu nag ak ngëm ak am tawféex suñu boroom ñëw ànd ak sëriñ bi ca xamaguñ li ñu wuy si lu mu doon lu yéeme am ci nag ndax bi sëriñ bi wootee ñeen fukki nit yàlla yi nga xam ñëw ko njëkk a topp njëkk jaayante moom ñëpp ay boroom xam-xam lañu woon ñëpp ay kàng fóore lañu woon ñëpp itam fu nit doon àgg ci diggam ak borom nag àgg nañ fa sëriñ Tuubaa kon loolu la ko suñu borom defal mu defar ñooñu nag. yabal leen kenn ku ci dem defarewaat sanc ay dëkk ba yoon wi ak si danaa ci nett li jenn wax ak Cheikh Ibrahima Fati daa waxoon ne Serigne may gi de li muy rëy rëy bu dëppootoon ne jikko ji ñett ñi du ñëw doomi soxna yi ceddo yi doomi soxna yi ak ceddo yi ak bokki boppam nee na doomi soxna yi lépp lu ne di jàng ci lu baax ak xam-xam xam nañ ko ba wuteetuñ ko fenn kon bu dëppatoon jikko yi du ñëw nee na caddo yi itam bu dee wàllu àdduna wut nañ ko ba am ko kon wuteetuñ ko fenn kon jikko jëlee nañ de bokke bopp bi itam nee na nit lu mu baax baaxle ay bokkam duñ ko gis kon bokkam yi jikko leen nag suñ borom defal ko ci lu mu mës defal kenn mooy woote ñi gën a sës ci yow di say bokk nongu la doon say taalibe kon lu Sëriñ Tuubaa loolu la ko suñ borom njëkkee defal mu jël léppam nag jox ko suñu boroom nanguwul dara luy nuru sirki bokkaale boo xoolee xasida yi ba mu jeex sëriñ bi li muy tagg tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa lépp ci suñu borom la koy delloo ku ko doon lim ci bayit yi dee bari waaye xasida tawxiid yi fu mu tudde rasulullahi ak may ga la muy rëy rëy julli ci yenn julli moom tagg ko kañ ko lépp da ko delluwaat suñ borom kon dafa jël léppam jox ko suñu borom jël léppam jibal ko rasulullahi sallallahu alayhi moo tax mu wax ne salaatu sitta bi mataxi sitta taatihi batta ma atisaay dafa séddale at mi lii day julli ci rasulullahi lii mu ngoy du ko tagg kon li mu doon liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lépp génnut tagg ko ak kañ ko sant suñu boroom wax ak màggam yëkkati ko wax dara loolu mooy jëmmi sëriñ Tuubaa suñu boroom itam fee ci moom xar baax joo ne kenn mësu koo am ndax la ci jiitu rek nattu yi yim am yi ko suñu borom def ma si sute di dégg ci àdduna kuñ ko teg ci nattu tàmbalee ko ci ba ñu bàyyi ko Mbàkke Bari dem ba jaar Ndar la ca xew Jolof ci eh, jeewal fa la njëkk jaar la ci suñu borom wax iza la lazina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar iza laqitum fi'atan fasbutu ba ju te fu mu toll rek suñu borom day waxante moom mu àgg Ndar suñu borom xamal ko ne ko wa iz yamkuru bika lazina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka yamkuruuna wa yamkurullaahu wallaahu xayru maakirin kon moom suñu borom moo ko doon gindi waaye ci xar baax gi mu njëkkee feneen ci jeewal la ndax ñett na ko ñëpp dégg nañ ko tubaab yi lañ naroon ak fañ mujj ak na suñ borom nooyale seen xol bi ñu àggee ndar itam ñu àtte ko ngir exilé ko fekk na sëriñ bi xam ko bind na ko itam assiru ma al abraari xiina assiru wa zanna al ida anni hunaaka assiru mu jox ko Ahmadou Ndiaye maa bi ni ko sëñ Moussa Ka nettalee ne ko dama lay firndee na dinaa delsiwaat kon sëñ Touba lim def ci moom la jëkkee mooy ñuy dem di la sànki yow nga ñi nga bàyyi sa sa ginnaaw yow nga leen di ñaanal ak di dalal seenu xel di leen wax ne dinaa dellusiwaat ci biir loolu dinaa ci nettali ak Cheikh Ibrahima Fati wax na ne diiru sëriñ Touba dina ci géej gi leetar bu ko sëriñ bi bind rek lam ko ci wax mooy na seenum xeet la ndax fàttewuma leen. ci bu doon kenn dañ koo xam ne laa war di fàttaliku kon Serigne Touba may yi ko suñ boon defar bari na bopp xëju ci waxtaan la ci gën a yéeme mooy natt bi ndax dafa wax ne tukki bi li ko waral ca ëzal la ko suñ borom dogale ndax nee na yàlla dafa yëkkati lu mag lu kawe mooy lii tey lu gën xamul nu dajale mboolam ñu baax ñi wax leen analee ku ma koy indil mooy natt bi nee na kenn jug kenn ñemewut a jug dem wuti ko ñaana na suñ suñ suñ nag xamal ko moom ci ndimbalam moo xam ne bu ko suñ borom waxeer lu mën am la mu xamal yàlla suñ borom ne ko man de mën naa ko mën naa ko am mën naa ko indi ndax indi xafisun alim ñaana suñ boroom borom dellante moom wax ko ab bindanteeg moom wax ko nattu yi ak waxtoo bi jot Sëriñ nee na ba àpp ba jotee dat ba jot nee na ci laa buur bàyyi kër gi bàyyi njaboot gi bàyyi lépp gent ngir rebuuti loola loola nag waxoon na ne amoon na daraje xutbaaniya ndax nee na laata may dem ci géej gi iimaan islaam ak ihsaan ñëw ma ci nabiyul mursal ñëw ma ci malakul muqarrab waaye nee na dama meloon ne ku nuyu ku amee xeetu lat ko nee na mu bàyyi xet gi ci sama loxo nee na ku ma nuyu ku ne nag wax ma ne ma jox ma lat ko lañ te nee boo fekk ne ëwma ko nee na man kon ne li ngor ci man mooy ma fexe ba wuti ko loolu mooy yoonu géej gi suñ boon xamal ko ne ko nag natt bu diis lee doon ndax fii nga toll bariwaana nit ku fa toll xemmeem cëri waa ahlu badri ndax lu weesu la waaye ci doogu sëriñ bi ak xemmeem ko ak bëgg a xeetali xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa tax moom mu mu amuk rek ci ne suñ borom róogi di la bindul ba xam lim attan lim attanul waaye bu ko róogi attanee rek jom ji ak fii du attan ko looloo waral mu engagé wu dem liggéey le rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te boobu kat fekk na Serigne Touba seexal na mboolem lépp ci seex it sa seex kenn ku ci ne sañ dëkk nekk fa ak sa mbooloo Serigne bi buur lépp bàyyi dem liggéey Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ko ko ku ko ci wétli nanguwul ànd ak kenn astaxlisu astaxlisu li ndax la Serigne Abdoul Ahad Mbacké waxoon ne ba muy taxaw di ñaan ku ku newoon ci ginnaawam di ko wax amin sax amul muy natt bu diis ñu di ko yóbbu Gabon. sëriñ bi wax na ni ci biir gaal gi ci laa déggee lu dul li ma ci suñu boroom xamal ne gaboo lañ ma jëme foofa la tàmbali nattu yi bi mu agsi garam basa nattu foofu la tàmbalee nit agsi na ko ndax yaay Cheikh Ahmadou Bamba daal di jaar ci turwa ca kaw sëriñ bi naa ma ne cel wuyuma ko nee mu ne damaa dégg ñu ne kat sama mbokk diw moo la jàpp ndax nee nañ nee nañ lii ci say taari bi nee nañ lii nee nañ lii sëriñ bi nee na bi mu tàmbalee di wax rek gaal gi tàmbali yuuxu bi mu tàmbalee ba tàmbali ko sonal rek gaal gi di yuuxu di yuuxu di yuuxu bañ agsi garam ba ñu tàggoo foofu la suñ borom ci xar baax yi mu ko wañ ci la bokk moo tax sëriñ wax ne azhaba anni llaahu fi garam ba sax qablu mubaarisi wa anni xalbasa kon sëriñ léppam ay xar baax ndax ñoom étape buñ ci toll fu ci ne mooy tàmbalee ca ndar ndax fa lañ ko njëkk boole gaynde ndax lu wér ne sëriñ bee ko nettali moo ko nettali archives yi bindoo jàppoon ne dana ko mën a lool xiifal ko xam ngeen la la maa ngi koy nettali barki ci julli géej gi sëriñ Modou Khalifa Niang ñi mu ko nettali ñuy dund fi ne mën nañ téeméeri nit kon loolu lu wér la ñu jóge fa jaar ndakaaru boole keeg aw yëkk bëgg mu lor ko wa taaratil baqaratu ka anna laha ajniha sëriñ bi ko bind ci loxoom nee na nag wa naaw ba mel ne lu ami laaf kon sëriñ Tuubaa fu ne jaar na fa bu julli géej gi ñëpp xam nañ lam ci julli woon ndax neewoon nag wóorum woon sama bakkan dana del seen déet waaye nag ndigalu suñu borom li mu ma dénk li mu digle gisuma lu jar faat ko ci kaw suuf moo tax mu sànni der ci ci géej gi suñ borom téyel ko ngir xam na ne du sawara mënta lakke ndox mënta màndal aw ñam mënta suural lépp de fekk mu ànd ak dogalu suñ borom Sëriñ Tuubaa xam ne rek géej géej lépp suñ borom moo ko bind te moo tàggal tàggatal bato yi yëpp ñuy daw ci kaw ndox mi kon la téye loolu war naa téye doomu aadama mu sànni géej der bi ci biir géej gi julli dellusiwaat tubaab yi wax nañ ne bi mu dellusee liñ ko wax ginnaaw accident bu mag boobu bokk na ci seen bind lañuy wax dañoo wax ne dañ ko ne lii nga def de xame nañ ci ne bu la bu la neexoon du dellusiwaat xame nañ ci ne jàmbaar dëgg nga xame nañ ci ne ku ku ku amul fit nga Sëriñ Tuubaa jóge foofa ba àgg Gabon façon natt bu seenum xel dem teg nañ ko la ci jiitu mooy nee na li ñu tudde këri këri kërifoor tey mooy seli yoon lañ koy wax ci wolof mbedd moo xam ne dañ koo teg ci digg foo xam ne nit ñi dañ ko rombay dem sëriñ bi nee na wërtaluñu moom nekk lu am mbaar ca la nekk taw bi di sotti ko ci kaw mu nekk ci natto yu diw juróom-ñaari at natto yu metti fu ñu jàpp ne moo gën a métti rek doomu aadama mënu fa dund ñu yóbbu fa sëriñ bi mu di ko dëkk muusu ca salit muusu ko jàmbat la ci gën a yéeme nag mooy liggéeyam yu tedd yooyu yi nga xam ne nee ca lama suñ borom setal ci mbooleem ay bi doomu adama ca fa lama suñ borom defe ma mujj ba mel ni ab jant ci yëkkati ko ci liggéeyam bu tedd boobu natt bu ne teg nañ ko yóbbu nañ ko ci barab boo xam ne mooy fi ñuy wax maayumba maayumba tey ca li muy firi ci seenu làkk mooy nañ dem seeti ba xam mënees na faa dëkkam dit ndax foofa am na ci benn docteur allemand boo xam ne rapport ba mu bind bokk na ca lam ci wax mooy fii ku ñu fi indi ku ne dañ daa war a yóbbu ci yoon ku fi indi ni ku ne sa yow la ñu war a yóbbu ci yoon ndax am na ay ngodd yu fa daa nekk di matt yoo xam ne ku matt sabakan du ko nettali Sëriñ Tuubaa di ko dékku taw bi du sotti ko ci kawam bu demee ba tàmbali bind foofa xam ngeen jaww jëne bindoo ndax bokk na ci dañ ci doon bokkut ak climat bii ñu yóbbu ko fa gaalam yi moo koy yëkkati boppam te nangul ko ci dimbale kon loolu la fa nekke tubaab bi du ko nattu di ko tege diis waaye nag suñ borom dogal la ci jëmmam ne saa suñ xëyee Sëriñ Tuubaa mbiram di leen di gën a jaaxal dugal lañ ko ci mu yeer Sëriñ Tuubaa wax na ne soxna jaaraa fa génne yëkkati ko ne ko buñ gàllankoor sa liggéey kon pexe mu sam xel dem def nañ ko fa ba ca mujj nag mooy bi nga xam ne mooy zuhuru ahli badr mooy feeñu ko ahli badr loolu mooy dañoo dajale ñi nga xam ne ñoo dàq fetal ba mooy am na foo ko sëriñ bi junn ci xasida yi wax wahabalil wahabi fi sulaasa maa yox la asrata wa thalasa def leen kuréel ñoom ñëpp ñu diiraloon leen jëmbi sëñ bi ñu tiirante ñëpp faatu kon Sëriñ Tuubaa wax ne najawtu min fitanil aadaay is qasadu nii bil madaafi turan wa sakaaki kon natt bu sam xel dem teg na ko waaye lu ñu ko bëgg teg ci natt ni ko doomu aadama yi di yéegee ni la ko yéege lu weesu xamal nañ ko ne ko natt baa ngi bëgg ñëw waaye ni ko nit ñi di ko yëg ñu teg ko natt boo xam ne fa mu jub du fa mën a tëdd fa mu tëdd du fa mën a jug lépp mu di ko mu di ko muñ te dara taxut jëmmam taxut loolu xet xet li xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ndax wax na ne lawla alquranu wa xidmatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma bittu fi dunia laylatan waxida nee na burtoon ak alquran ak liggéey rasulillahi sallallahu alayhi nee na duma fanaan ci àdduna génn guddi kon xet li xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rekk tax waxoon na it ne li ko tax a tukki ci géej gi mooy ni mu ko waxee rek mooy xet li xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak daraja ji mu war a am mooy nekk abdullahi wa xaadimu rasul kon noonu la fa nekkee ba euh, juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer yi mat muy thamaniya xijjajan illa qalilan ci xam nga ne suñ gaawaan fekk na ko fa daana ko yónnee waxtu ne ay àddiya sëñ Modou Lo Dagana fekk na ko fa ba mu ko fay fekk ma ko fekk ca fi ñuy wax làmbar na foofu moo gën a métti làmbar na boo sëñ bi ci diggu àll lañ ko bàyyi lañ ko bàyyi moom bi mu agsee di wër di wër di wër bañ na ko fee la nekk bi mu agsee mën na seen jëmm sëriñ bi ndax boo fekk na yiy matt ak lii nuroo ki ay ay ay fel wër na jëmm sëñ bi ba mënta seen jëmm sëñ bi waaye sëriñ bi saa su waxtu julli jotee mooy noddal boppam liqaamal boppam jullil boppam bi waxtu waxtu noddu jotee sëriñ bi ne allahu akbar mu seen ne xam ne leen nit la moo xam ne sëñ bi mu àgg ci moom te loolu mësu ko jàmbat mës koo tiisloo li mu bind ci xaside yi lépp mooy danaa dem te danaa dellusiwaat kon moom lu mu am ci ndam rek gàcce ñoo ko toll ñoo ko yóbboon toll na ni ndax ñoom seen jëm bopp ñoo dem ba bindal seen bopp xam ne ñoo juum xam ne kii dara lu jëm ci mbiru àdduna néew ci moom moo tax ci biir loolu dinaa ci nettali benn rapport boo xam ne 1918 la mooy commandant cercle boobu nga ñu ko boolewoon ci njaareem musi musi yu ñëpp dégg nañ ko muy arter euh, artère Leslie rapport bi mu bindoon ci sëñ Tuubaa dafa wax ne la def Cheikh Ahmad Bamba xutwatun quwwatun fitriya boo ko doon firi ci arab nee na sëriñ Tuubaa am na force bu ko suñu borom bindaale boo xam ne force bi kenn xamut fu mu kenn xamut nu mu jóge kenn xamutit nu nee na topp goo ko nit ñi topp itam jéggi na dawe ba xelam doomu mënu koo xalaat nee itam bëgg yi ko nit ñi bëgg nag xiir na leen ci lépp lu mu leen wax rek danañ ko def te duñ ci xalaat neena na kon maa ngi wax ne yonent yi ak suhadaaw yi ak ñu baax ñi buñ dellusiwaatoon dañuy ñee Sëñ Tuubaa ci jikko yi ko yàlla defal nee na jikko yi bokk na ci xam ne woon ab soppe akum noonam nee na itam aw yiw jëm di ko jëmale ci ñëpp nee na ñu may tudd muy yonent yi ak suhadaa yi ak saalihiin yi woo déclaré woon ay guerre sainte te amuñu woon genn wàllu doole ji yàlla jox Sëriñ toit ba noppi muy woote jàmm kon soo su seere te dañuy wax ne alxaqu ma shahidat bihi al adaw pol Paul Marty ñëpp xam na ne bokk na ci ñi gën a màgg ci noonu sëriñ bi ndax ma sa bind ci moom lu baax am na ci benn rapport boo xam ne dafa wax ne kii di Cheikh Ahmad Bamba dooleem àgg na foo xam ne ni muy màgge buñ ci jugut fexe ba freiné ko dana dem ba daj àdduna daane nag mbooleem mission bi ngay ñu mas a yónni ci Afrique rawatina diggante Tunisie Algérie ak Maroc seenuñu Serigne Touba ci mission yooyu ngi ñu daa sant ñoom fi mu àgg ci digg ma boroom bi kenn xamut fu mu àgg mu ne mustawa bi muy waxee ci arab mooy niveau nee na kawe na ko kawe kawe goo xam ne ñi nga xam ne ñoo nàmp langue arab sax xamewuñ ko noonu nee na xasaay itam itam bu tasaaroo ci àdduna fu mu àgg rek mission dana fa àgg kon nag bokk na ci li ñu war a gën a xeex mooy nañ fexe ba nit ñi bu mu tasaaroo waaye nag li ci suñ ndimbal mooy lépp ci ay taalibeem jàngul kon Serigne tubaa noonu la ko suñ borom defal mu dellusiwaat nag. ñu yóbbu ko Mauritanie mu àgg naar yi faq Mauritanie dañuy wax ne Mauritanie dañoo wuute ci lépp am mu des mbiru Sëriñ Tuubaa boo fa demee ña bokk ci atarixatul qaadiriya ña bokk ci atarixatul tijaniya ña bokk ci atarixatul zaziliya ñëpp a nangul Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa fa ma sàmm mu seexal fa ay nit wane fa baax yu baree bari yoo xam ne tey buñ toon fii di ko liw duñ xam fu muy àgg mu ne fa lu mat ñeenteel ngir mottali mission bi nga xam ne waroon na koy def ci Gabon nam ko waxee man man zanna zayri rib aami aksasi misla masiri rasa aami jaysasi fabata kawnuhu jahulan umra bal huwa tadyibul ali lil umra lam yaku cheyru aksasin siwa jasa man lie xaada baadu wax da najasa Cheikh Sidiye mi nga xam ne ci saw bu saaxir si moo taxoon ñu yóbbu ko Mauritanie ba mu àggee moo njëkk a way Sëriñ Tuubaa kañ ko tagg ko ne acheikhu ahmadu nicmatun awlaaha haasi alxalaaiqa kullaha mawlaaha Sëriñ Tuubaa xéewal la gu suñu borom xéewal bindéef yëpp foo ko yàlla yóbbu rek xéewalu ñoo yàlla fa alhamdulilahi allasi nicmaauhu laa yastatiu ibaduhu ixsaaha wayu wayu kii yoo xam ne kenn mënta natt ne xay ba dafa wax ne laajkat yi ñi ñëw ci Serigne Touba Serigne Touba da di war xan xar kanam bu bu ba fa ka annama tuutihi ma ataha day mel ne ki lay jox si alal mbégte ma ngay àndal Serigne Touba buy joxe mbégte moom lay àndal ci ki muy jox Serigne Touba noonu la nekk ba mu seen gépp nongul ko ba mujj nag moo tàmbalee tasaaroo ci yenn réew yi arab yi la ko suñu borom doon liggéey loo mat mu jële fa mboolem lu baax lu fa newoon fa la wérdu maxuus juddoo rasuulullahi sallallahu jox ko ko yaqazana laa man aman jahran ñu indi ko jële ko fa indi ko ci yéen jorof ngir man ko isolé ci barab boo xam ne nit ñi duñu fa mën a àgg ndax ci yéen ba fi ne xam ngeen ne neexuta dem amatu yoon te loolu fi mu nii mën na téeméeraat te ba fi ne neexuta dem ñu ne foofu bu ñu ko fa yóbboo nit ñi luñ jàmbaar jàmbaar ak luñ bëgg-bëgg Sëriñ Tuubaa duñ ko mën a attan ñu fa nit ñi def xelef xelef ba mujj foofa sax moo duñ ko dékku Sëriñ Tuubaa tàmbali nag dafa defar nit ñi defareen woo xam ne dem na ba ñoom ñoo xam ne lii bu continuer dana mujj Sénégal gépp daañu defaru ndax Sëriñ ñëpp daan leen defar ba ak yàq weesu ñoom ñu jële ko fa indi ko njaareem ngir illa ji ñu waxoon wax ne buñ ko fi indee ñam xas defar jeex na waaye gone yi cinéma yi ak marché dana leen fab bi ba bu ëllëgatee si biir li Sëriñ Tuubaa bëgg def ci ñoom du nekk ci ñoom fekk nag foofu la Sëriñ Tuubaa mbiram di yëkkati ko raamu masiri ila jurbel la daal la law aayenoo sirra maa fi ma raamu foofee la ko suñ borom wane la nar a xew ginnaawam foofee la ko suñ borom wane la mu ko daali woon ca maayom ba ndax ba mu sampee ay bant ci buntu néegam def ko jàkka gouverneur bi da ko ne fii jàkka mënu fi am ndax yow da nga bëgg yàq sama soldaar si Sëriñ Tuubaa taalib xasiid ak rabbana min haasihi alqaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasiran raditu an il taala lasi rabba fuaadi wa axnaani wa akrim bihi rabba ba mu ci la huktub salaatan salaamin bi alihi wa assa bihi wacca bihi masjidi rahba suñ borom xamal ko ne nangu naa sa ñaan te dinaa la may ñaari jumaa te benn bi danga ci dëkk sa bët mooy jumaay Njaaréem ak jumaay Tuubaa ka nga xam ne mooy ci xoloo gouverneur ba nag suñ borom def mu daal di ñëw Njaaréem bi mu dikkee sëriñ boro ko suñ bët la mu dagana moo ko bind ci irwa onadim ñu ànd mu wër ko ba mu jeex nee na sëriñ bi ne ko noonu defee ak sama bant yooyee yow mi doon xuloo ngeen moo tax la Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke waxoon ne li ma Serigne Touba wax ma teg ci sama bët li ma wax te teguguma ci sama bët laa gërëm bu ma yoroon kaasu kafe mu wóor ma lii kaasu kafe la la ma Serigne wax te teguguma ci sama bët moom laa gërëm te booba la ko indi dafa nekk fii ci Daaru Xuddoos am koy jàng waccaat bihi daari yekkal madina barakatan wal kaabatan masura kooku mel ko xaw sikk sàkk mu ne ko mbaa danga koy sikk sàkk ci la ko tegal wax jooju kon ñu tënk foofu rek ci jëmmi Serigne Touba ndax sëriñ bi xar baax yi boo ci tàbbee danga dul xam fi ngay tàmbalee ak fi mu yem waaye ñu xam ne suñ boroom defal na ko lu mu mës defal kenn ilaya qaadallahu ma lam yëkku ni wala yakunu abadan li mu ko ni foo ko làmb ci mbirum Serigne Touba fekk ko fa ndax nii ko nit ñi nongule ni jële si lépp jox ko mu gën a leen seen jëmm gën a leen sarala Sëriñ Tuubaa ku jëkkam ci àdduna te kenn amatu ko kon Sëriñ mbiram sant yàlla bi mu ñu boole moom bi mu ñu defee tawféex ñu bokk ci ak njabootam te waxoon ne sama taalib yi kat faggul naa leen lépp lu mat a faggu faggul naa leen àdduna alaaxira ju ànd ak xisaab ak teraanga ju ànd ak coono loolu na ko la ko faggul kon mënatoo ko fay kon li ñuy war rek mooy góorgóorlu rek ci ay ndigalam ak i tereem suñ kemtalaay kattan te jël suñ lépp jox ko nag te bañ cee desal dara ndax sëñ Cheikh Abdoulaye Mbacke daana waxoon sëñ Tuubaa du fecc def saako waxoon na itam ne ku ma jox sa lépp ma jël sa lépp téyel la ko ku ma jox sa leen téye sa ma jox ma defaral la ko neewoon na ñi ñëw ci man itam ñaari xeet rek lañ nee na ki nga xam ne àdduna ko indi nee na ak ki nga xam ne àllaaxira ko indi ki nga xam ne àdduna ko tax a jug yàlla suñ boom jox na ba mu doy sëkk te soxlu ci dara nee nit nag boo ko toppee ngir dara bu la ko joxee wàccoon ak yow ki ñëw ci man ngir àllaaxira nag lañ fa bëgg mënal naa leen te dinaa leen ko defal loolu nag boobu engagement mosuma dégg am na genn kilifa gu mag ab xelu général la ci tarixa bu mag waxoon na nit ne ko Serigne Touba de lii ma gis ci ay mbindam ñu ne moo ko bind bu fekkee lu wér leen moo ko jëlee ci moom moom du nawle kenn ndax engagement yi muy jël mosuma gis ko jël. ma ne ko nag la ci gën a yéeme de mboolem mbind moo gis Serigne Touba bind ko ci ay xar baa xam ne ki mayam mbind la woon moo xam lépp da ko jël bind ko teg ko ci yàlla denc ko waaye soxlawutoon sax nit ñi xam ko loolu lu mu doon dee yàlla diggam ak borom la kon nag xam naa ñu tënk ko foofu rek ndax. yeneen laaj yi nga xam ne woo nañ caa jëm ndax sëriñ bi moom boo ci xasee ba tàbbi da nga doon xamante fi ngay duggi ak fi ngay génne